moom nag mooy makaan murtafi min ardi baytil maqdis tabarakàllah mu nekk mustawiya yastaqiru alayha wa ma in jaarin zahirin lil uyun alfaqru raasi mu ne alqaraar almustaxarru kullu ardin mustawiya rek mabsuuta walmuin almaau zahir aljaari wala altaahir aljaari ala wajhi al ard loolu la alfaqru raasi wax qataada mu ne zaatu thimaarin wa ma yaani annahu li ajli simaar yastaqiru fiha saakinuha ba deme ci a tafsirul kabir jukki fanweer ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak ñett wax jooja ca lañ ko jël yàlla mu ne yaa ayuha rusulu ee yéen yonent yi yonent yépp nidaa un li kulli rasulin fi zamanihi wasaa bihi kullu rasulin irshaadan li ummatihi yaa ayuha rusulu ee yéen yonent yi kulu lekk min at-tayyibaati ci lew ci lew yi teey lew wa amalu saaliha te saxoo def lu baax inni man yàlla bima taamaluuna li ngeen def yéen yonent yépp alim koo xam laa loolu ab tëkku ab moytuloo la bu moytuloo yonent yi alayhim salaatu wasalaam su yonent wéyee muy tëkku ak moytu la bu moytuloo loo ñi nga xam ne ñooy ulama yi di borom xam-xam bi yaa ayyuha rusulu ee yéen yonent yi bu ngeen di lekk kulu lekk leen min at-tayyibaati ci teey te lew mbir boo koy lekk na teey na lew loolu mooy na dagan lew dagan képp doyut lew képp doyut bu lewee te daganut baaxut bu daganee te lewut baaxut ndax xar dagan na waaye xar bi ci mbedd mi te moomoo ko léwut kon baaxul xaalis dagan na waaye xaalis bi nga moomut lewut lekkal xaalis waaye na lew dangay boole moom xaalis bi waaye ak itam mu dagana moom waaye ak itam na lew benn ñaaral ba waamuloo saaliha fu ngeen toll de def lu baax ndax ay roy ngeen lu ngeen def nit ñi def ko ab yonent lu mu def rek nit ñi def ko kilifa it lu mu def rek ni ñi def ko waa këram sax day lu ñu def nit ñi def ko loo fi tere it te ñu gis ko këram boo moytul nit ñi duñ ko bàyyi ndax dañuy wax ne waa kër diw ña ngi koy def mu ne yaa ayuha rusul kulu min at-tayyibaati waamalu saaliha inni man day bi ma amulu taamaluuna alim li ngeen di def xam naa ko man yàlla tabaraka wa taala mu ne leen wa inna te na ngeen xam ne yéen yonent haasihi xeet wii ummatukum seenu xeet la ummatan waaxida wenn xeet rekk la yéen a ko bokk yéen yonent yépp yéen a bokk wenn xeet nooxun moo ci tàmbaleel njëkk a liggéey tabarkàlla ngeen toftaloo idrisa ñoom shuaybu ñoom saalix ñoom ñoomeen hóot ñoomeen saalix jaar ca tabarkàlla muusa ñëw ci isa dikk ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa inna haasihi ummatukum seenu xeet la ummatan waaxida wenn xeet dong la ku fi mas a nekk rek ci yonent yi li la ci kaw suuf lépp saw xeeta boo demee nag amatoo fi wenn xeet moo moomatoo fi dara tabarkalla moo président bu ñu jëlee ca fa mu nekkoon ci réewam moo bokk yam su xasee dem ka fa nekk léegi mooy yilif la fa nekk lépp tabarkalla mu ne leen wa ana te man rabbukum may seen boroom fattaquun ragal leen ma kon yonent yépp alayhim salaatu wasalaam umma waaxidan la ñu wenn xeet la moo ba mu cay junj xeetu Muusa fanweeri juróom-ñaar fukki kuréel ak benn xeetu Isa ñëw yokku ca muy juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar xeetam ñëw yokku ci muy juróom kuréel ak ñett tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam su ko defee yàlla tabaraka wa taala kon mu wàññi foofu lool lu am solo moo di wa inna haadihi ummatukum ummatan waxida wa ana rabbukum yonent yépp ñoo bokkoon lu ñu tabax benn tabax dong lañ doon tabax kenn ku ñëw nag boo tabaxee ba noppi da ngay dem sa borom ñëw tabax moo tax keroog bi yonent bi di rañaan di dem baytul maqdis mu jógee Makka au lieu mu yéeg rek wuti asamaan wut suñu borom mu dem ba baytul maqdis te safaag yonent yi alayhi salaatu wasalaam sargalanteeg ñoom nu ngeen def ci liggéey bi kenn ku ne woon ko tabarkalla ne fii la toll waaye loola la ci ëppoon Moussa alayhi salaam moo ko doon wax ak moom sallallahu alayhi wa sallam. ñu borom tabaraka wa taala bi mu tuddee kon nettali bi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam taftal ca xibaaru yéefar yi nga xam ne ay kàccoor lañu ak seen nit ak wuute geeg ñoom seen yooyu yooyu ci la suñu boroom tabaaraka wa taala jëm ndax doomu aadama yi mën a moytu turuxu ahli dala yàlla nee na kon fa taqattau ñu daal di tasaaroo xeet ya umma waaxida yàlla mu ne léegi fa taqattau ñu taqali ko amrahum seeni mbir baynahum ci seen diggante zubaran nekk ay dogit nekk ay dogit fu ne waay jëm kii ñu ne majusi la kii ñu ne yahudi la kii ñu ne nasraani kenn ku nekk am foo xam ne fii fa nga jëm te it bu fekkoon ne dañuy def yonent bu ñëw ñun ñépp ñu ànd ak moom bu weesoo ñu keneen ñëwaat ñu ànd ak moom bu weesoo keneen ñëwaat ñu ànd ak moom yàlla nee na taqalikoo gi du ci am ndax départ ba tàmbali ba lépp kenn ko doon woote kullu xisbin nee na nag parti bu nekk bi ma ladayhim la lafa ñoom farixoon kontaan nan ca tabarkàlla du ñu bëgg a ñee kenn jàpp ne la ñu yor rek mooy la baax kullu xisbin bi ma ladayhim farixoon yéemu ca lan yor bëgg ko lool jàppe ko diine eh, fonk ko lool yàlla mu ne fasarhum bàyyil nit ñi fii mu wax ko yonent bi fii xamratihim ci seen ngëlëmte gi xataa xiin ba jamono bàyyi leen rek mu ne damir bi li kufaari makka ak ñu mel ni ñoom ak ku jaar fan jaar tabarkalla bàyyi leen rek xataa xiin xataa xiin mooy ila xiin mawtihim mu nekk tasliya li rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ne nit ñi ayaxsabuuna ndax dañoo yaakaar an numidduhum annama numidduhum ñun dañ leen doole rek wala boog ànd maa li nu nekk nu bi bihi lii ñu leen di dolli min maalin ci alal wa baniina ak ay doom nu saariu dañu njëkkalante lahum ñee leen fil xayraati ci lu baax mu ne mënax ñii ñu jubadi ñii ñu jàdd ñii dañoo yaakaar ne lii ñu leen di defal ci alal ak ay doom mooy seenu mbaax a tax ma leen di njëkkalante di leen defal lu baax déedéet bal li la yashcuruun yëguñu ne yàlla boo nekkee ci caay-caay mu lay jox alal istidraak rek la tabarkalla da lay jàpp bu la jàppee doo rëcc ba dema ci téere bu ñuy wax masaalikul jinaan benn bayitam fi boo xam ne li muy tekki mooy soo nekkee ci xéewal te fekk yaa ngi ci ak jubadi loola ngay am du tudd xéewal waaye istidraak lay tudd mooy suñu borom tabaraka taala moo la koy jox ni nit di joxe pepp ako su ako su ndox picc mi bëgg a jàpp suñu borom tabaaraka taala noonu lay def nit kooku def ko istidraak ba bu ko jàppee du rëcc moo tax nekk ci juba ju di am alal nekk ci jubadi di am yu bari te doo sant yàlla doo ko gërëm yàlla mu ne bu leen defen loo gën ci waa ji de déedéet gënul ci moom day mujj rek mu daw ne ko fa ñukk bàyyi ko fa tabarkal moo tax balaa yashuruna jooju gaa ñu ne wa xaalu naxnu aktharu amwaalan wa awlaadan wa maa naxnu bi muazzibiin tabaarakallah ci alquran yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci hadis mu ne inna allaha yuti dunya liman yuhibbu wa liman laa yuhibbu wa laa yuti diina illa liman ahabba mu ne xaaj boo xam ne bii mi ngi bokk ci hadis boo xam ne bii axrajahu al imam ahmad mu ne yonent bi nee na yàlla day jox àdduna kum bëgg di ko jox kum bëggut waaye junne du ko jox lu dul kum bëgg wala nga ne yàlla da jox àdduna ku bëgg àdduna ak ku bëggut àdduna waaye alaaxira du ko jox ku bëggut alaaxira mukk tabaarkàlla suñu borom tabaaraka taala kon wax ne ñi muy jox àdduna bu nu yaakaar ne daf leen a bëgg bal laa yashuruun dañ ko yëgut rek inna lazina ñi nga xam ne hum ñoom min xasiyati rabbihim ci tiit gi ñu tiit seen borom ragal gi ñu ragal seen borom mushfiquuna dañ cay tiit yàlla nee na ñooñu day ñoom ñoo baax Aïcha radiallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw xanaa ñooñu mooy ñii mooy yàlla mu ne mu ne ko déedéet dañuy nekk ci mbaax nekk ci jub ba noppi waaye teewul ñuy tiit naan waaw ndax li ma def yàlla nangu na ko wala yàlla nangu ko wala si ak ñi nga xam ne hum ñoom bi aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom seen kaawtee fi borom yuminuun loolu la ñuy gëm yusaddiquuna bi ayatillahi alquraniya wa ayatihi alkawniya ndax ayatullahi dafa am ñaar muy alquran yii waaye ak yoo xam ne dafa nekk ci adduna si nekk ay dalail yoo xam ne ak i barahin yooyu tegtalee amuk suñu borom bi tabaraka wa taala mu tax waykat ba ne woon wa fi kul cheyin lahu ayatun tadullu ala annahu waaxidu tabarakalla wala si na ak ñi nga xam ne um ñoom bi rabbihim ci seen borom laa yushriku du ñu bokkaale seen borom mukk lépp lu ñu yëg ne bokkaale la mbaa ñu dégg ca turwa wala yu dem ni ko yooyu ñu ne ko fa ñukk ndax bëgg a daw ci dana màtt ak du màtt moom bul ca teg sa loxo wala siina ak ñi nga xam ne yutoona maa ataw dañuy joxe ca lañu leen jox muy ñeenteelu melaw ci melaw jullit yi tabarkalla yutoona maa ataw dañuy joxe lañuy joxe la leen yàlla jox dañ cay xomp di jox ña ko aajowa wa qulubuhum te seen xol ya ba ñu joxe loola wajilatun ma nga tiit naan annahum ñoom raajiuuna ila rabbihim dañuy dellu ci seen borom ñooñu di ñeneen ñoo xam ne ñoom tam tabaraka wa taala di leen tagg wa qulubuhum wajilatun moom laa doon junj léegi tabarkàlla Aysa mu ne waaw xanaa mooy ñi nga xam dañuy njaalo di sàcc di naan sàngara ba noppi ragal yàlla salawaatullahi wasalaam ne ko laa laa yaa bint siddiq walakinahu alladi yusalli wa yasuumu wa yatasaddaq wa huwa maa zalika yaxaafu llaha azza wa jal hadis boobu tabarkàlla axrajahu al imam ahmad yonente bi alayhi salatu wasalaam aysa ne ko yutuuna maa ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raaji'uun xanaa mooy ñi nga xam ne dañuy génne dañuy jàdd yoon di sàcc aka naan sàngara mu ne ko déedéet yow mi nga xam ne yaay doomu Abubakar Siddiq waaye daal mooy kuy julli di woor di saraxe ba noppi di ragal yàlla subhanahu wa taala nga dégg ndeysaan baatu yaa binta siddiq yaa binta siddiq li muy tegtal mooy yonent bi daan wooxe soxnaam yi wooxin wu tedd wooxin wu yiw wooxin wu rafet te itam wooxin wu oyof woo xam ne du leen gëdd du sori di leen jollu mbeeru sallallahu alayhi wa yàlla mu ne ulaika ñii mu tudd borom ñeenti melo yi ulaika ñii mu tudd ci ñeenti melo yi nga xam ne dañoo tiit seen borom alaaxira xam ne dañoo gëm aay yàlla yi xam ne dañoo bokkaale la leen yàlla jox lu mu néew néew ñu tey xompal ñañtane ba noppi nag di tiit seen mbirum alaaxira ulaika ñii daal yusaaricuuna ñooy rawante fil xayraati ci ay tuyaaba fil xayraati ci lu baax bu njëkk noonu la nit ñi meloon bëgg lool ay tuyaab léeg nga taxaw fenn di waxaale mbir benn waay ñëw fayal la ko léeg nga ne bëgg dëkk sàngam benn waay ñëw jox la ko benn waay ndeysaan daa fekk kuy gas ay bàmmeel mu woo ko ne kaay sëf ko ci otoom yóbbu ko ba ci kër gu jekk gu baax gu àgg daal koy jox caabi ja ne ko yow miy gasal nit ñi kër wax dëgg yàlla war nga am kër loolu mooy saabixuuna fil xayraat benn waaye daaw fekk na fii ñeenti silmaxa mu ñoom ñëpp mu def leen ci oto kenn ku nekk may ko pàkk boo xam ne bii tabarkàlla nee ñu ma ña koy defar ñoom ñooñee tabarkàlla ulaayika yusaariuuna fi lxayraat ak ñeneen ak ñeneen bari nañu mu ne su leen lim tabarkàlla wahum laha saabiquun ñoom ña ci njëkkalante yàlla yàlla boole ñu ci tabarkàlla ni ngeen ko ñaane yéen tamit yàlla mu ne wala nukallifu duñu togg nag nafsan benn bakkan illa wusaha lu dul lu man mu ne bi may wax naan ngeen def lu baax joxe saraka gi yépp mu ne ah wala nukallifu du ñu togg nag nafsan benn bakkan illaa wasaha lu dul lum man yàlla du la jox junni mukk di la laaj fukki junni déedéet da lay jox junni kay jël li jël di ci laaj ay euh, cinq ak yu demee ni ko yooyu waaye du laaj junni te fekk mu jox la juróomi téeméer moo tax gis nga ku mu jox lu mat génne asaka ba nga koy génne asaka mille francs yu nekk yàlla nga ko cay laaj 25 francs donc 2,5 pour cent kon nga gis yàlla li mu wax ne wala nukallifu nafsan illa wusaha loolu tabarakallah looloo koo leeral mu ne wala day naa nekk na fi ñun yàlla kitaabun téere boo xam ne bu yawmal xiyaama yantiqu bil xaq dëgg lay wax de yantiqu bil xaq dëgg rek lay wax ñu ubbi téere bi xool ñu ne waa paas bii day diwa ko moo man mi ngi judd barab sàngam gane àdduna barab sàngam ci barab sàngam barab sàngam euh, waxtu sàngam la génn àdduna diw diwa yi ay waajuram lii la defoon nangam nangam ñu topp téere booba te téere ba du tooñ kenn waxum laa yus la mu ne kenn du leen tooñ waaw fi ne boo demee école tabarkàlla bis bi nga duggee ba bis bi nga génnee dañ lay topp say note jaar fi sa conduite jaar ni nga daan def nangam nangam ba boo ñëwee ci direction ba boo ne diw laay laajte ñooña mën la ko wan yàlla mu ne gaa yooyu li ñuy xereñ xereñ maa leen xereñ foofu tabarkàlla bal li fi nekk xuluubuhum seeni xol ñoom ñi weddi yàlla fii xamratin dafa nekk ci ngëlëmte min haza ci wax ji yàllay wax min haza ci téere bii wala hum waaye am nañu amalun ay jëf min dooni zalika lu dul loolu hum laha aamiluun moom la ñu jëfe am nañu yeneen jëf yoo xam ne du loolu yoo xam ne moom la ñu jëfe tabarkàlla ku nekk war caa bàyyi xel nekk koo xam ne dangay moytu kufru waaye moytu sirk yàlla mu ne nekk ca yooyee yoo xam ne ñu ngi koo jëfe waaye njëkkalante wuñ ñi fil xayraati xanaa di njëkkalante ci kufru di njëkkalante ci sirk di njëkkalante ci modd bi xewoon maala ci njëkk am di njëkkalante ci col sàngam maala ku njëkk sol di njëkkalante ci lekk sangam maala ko njëkk lekk ñoom daal walahum amalun min duni zalika hum la aamiluun nekk cay jëf wala ñu njëkkalante ci am ay tuyaaba ñu njëkkalante ci yeneen ba kinjim kinjim sàngam génne maa ko njëkk am foo sàngam maa la ko njëkk a seetaan rek ndeysaan yàlla mun ne ca la ñuy nekk rek hatta isa axas naa ba ñu jàpp mutrafihim seen nooskat ya seen xéewalukat ya bil azabi ci mbugal isa hum ñoom yaj aroona ñu tàmbali nag di ñukk di daw maanaam bi yàlla fekk jàppee ñi nga xam ne ñooy bànneexukat yi nga xam ne ñooy aji oomal yi nekk ay kubara kàngam ya jiite nekk ca tabarkàlla mbir ya yàlla mu ne su suñu borom mu ne tabaaraka wa taala bi ñu leen jàppee ci mbugal ga rek isaahum yaj aruuna ñu tàmbali nag di yuuxu yarfauna aswaatahum bil istiqaasa ibnu abbas mu ne huwa al juu alladi aaya ak uh, benn nga xam ne suñu borom mawlaana tabaaraka wa taala mi ngi ñu ci doon nettali ay nettali yu am solo yoo xam ne mi ngi jëm ci wàllu lépp muy gëm ko mu ñu doon wax naan am yaquluuna bihi jinna bal jaa jaahum bilxaq wa aktharuhum lilxaqi kaarihuun mu ne nit ñi dañuy wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am feebar bu ñu wax saddum jinne yàlla daal di koy miim ne déedéet bal jaa bilxaq dëgg la indi wa aktharuhum lilxaqi kaarihuun li ëpp ci nit ñi nag moom dëgg rek lañ bañ yàlla ne na li ëpp ci nit ñi dëgg rek lañ bañ dëgg daal moom saa boo ko waxee rek tabarkàlla ñu bare ci nit ñi mere la waaye soo waxee leneen raay raayal leen wax leen mbir mu ne loolu daal moom nit ñi moom dëppoo nañ yàlla mu ne muy tàmbali tey ci bindub tey bi di juróom fukki aaya ak benn mu ne wali walaw ittabaa alxaqu ahwaahum la fasadati alsamawat wal ard wa man fihin walaw su fekkoon ne ittabaa day topp alxaqu dëgg su fekkoon ne yàlla day topp ahwaahum bànneexi nit ñi lu ñu ne diis na ci àtte mu teggi lu ñu ne diis na ci tëralin mu teggi bu ñu ne koor gi saf na mu ne kon bàyyi leen bu ne mu ne julli gi nangam mu ne kon bàyyi leen mu ne bu yàlla doon toppinu nit ñi la fasadati samawaatu suuf yàqu wal ardu asamawaatu ah, asamaan si wal ardu ak suuf wa man fiihinna ñu ne ci seen biir yàqu suñu borom nee na bu fekkoon ne nii mu tërale atteem yi dañ koo tëral ci kaw suuf dafay baax mu ne waaye bu fekkoon ne da di topp ci seeni bànneex di leen topp ci seeni tëralin kenn ku ne loo bëgg mu jaar ca noona nee na kon suuf yàqu asamaan yàqu mu ne kon la fasada nizaamu alaalam ajma ulwiya wa sufliya wa fasada man fihi min almaxluqaat li fasaadi ahwaihim waxtilaafihim ndax kenn ku nekk na bëgg mbir mi tëddee ko lépp lu yàlla tëral subhanahu wa taala day am comme arrangé wut waaye su fekkoon ne yàlla ñëw nag di seet mbirum tëralin lu ñëpp d'accord rek mu tëral noona mu ne kon la fasadati samawaatu wal ardu asamaan day yàqu suuf kasir mu ne wa fi haza kullihi tabyiinu ajzin al ibaad wa ixtilaaf aaraa'ihim wa ahwaa'ihim wa annahu taala huwa alkaamilu fi jamici sifaatihi wa afaalihi wa tadbirihi li xalqihi muxtasar ibnu kasir jukkim ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk mu ne lii day leeral ne doomu aadama yi lott nañ ci tëral lu leen di wéel doomu aadama yi li tax ñu lott ci mooy seen wuute xalaat seen wuutey bànneex seen wuutey xel yàlla rek moo mat moom moo mën a tëral lu ñëpp di jaar waaye ku dut yàlla mënoo tëral lu arrange ñëpp lu ñëpp di jaar yàlla mu ne walla ittaba alxaqu ahwaahum la fasadat samawaatu wal ardu man fiin bal fi nekk ataytahum andil nga leen ataynaahum indil nañu leen bi zikrihim ci seen terang teraanga ataynaahum indil nañu leen bi zikrihim ci lu leen di waar bi zikrihim ci lu leen di waar waaye fa hum ñoom an zikrihim ci lii leen di waar an zikrihim ci seen teraanga jii di alquran muariduun dañ koo dumooyu kenn nangu ko seet dañoo dumooyu alquran muariduun yàlla mu ne teraanga jii di alquran waaraati wii di alquran lépp ci ñoom an zikrihim muridun dañ ko du jàngatuñu ko daara yi daal di fay jàngu yi daal di fay nit ñi joxeetuñu seen doom ay jàngu kenn toppatootu ko alquran mii daal di tàmbali wéet ci dënni góor yi nga xam ne boo bu doon tey ci ñun soo dee joxe kaamil di ko tasaara ñuy jàng bëri na ñoo xam ne boole na jox jukki ñu na ah, man bàyyi ma rek man soriw ma ci jox ma kurus te it li ëpp ci nit ñi nangam pour cent soo leen dajaloon ci ab barab di leen jox jukki beeg ñoom seen yooyu foofu la ñuy toll góor ñi léegi foofu lañ toll jigéen ñi léegi foofu lañ toll da fekk borom boo xam ne bii ñi ma wut a jiite aw ay doomam di wax ca kaw ñi ma wut njabootam di jàng ca kaw ndax tey mu jàng fi euh, suratu ma mauna boole ko euh, suratu naasi araayta allazi Ah, yu was wisu daal di jaxase joge fii jële fale loolu tabarkalla bal mu ne ataynaahum bi zikrihim fahum an zikri rabbihim mu'ridun dama demee jàngatuñu alquran yitte wootuñu ko tabarkalla dañu daan nekk ci yeneen yoo xam ne yi rek yooyaa leen di gën lu demee ne kii jàng meneen njàng moo xam ne mii mën naa am mu dox seen digganteeg alquran wala boog meneen yeneen programme yoo xam ne yi tabarkalla gis naa jigéen joj ba jabar jënee wala ba jëkkër jenee day joxe doom ji jàng daf na su fat ne ko du dem mukk mukk mukk mukk tabarkal waa ji loolu doy na waar moo tax alxuraan yàlla nee na ca ñam doon waxal wahum fahum an zikri rabbihim mu'ridun waaye daal wax jooju dafa yaatu ni ma koy waxee al abarat bi umumi lafsi laa bi xusus sabab mbir mi ñëw na ba ci ñun ñi nga xam ne ci ñun la agsi yàlla mu ne yonent bi am tasaluhum xarja xanaa da leen di laaj bokk xarijan ak pay wala ndax da leen di laaj bokk xarijan ay cotisation bu fekkee yaa leen koy laaj na ko bàyyi ndax fa xaraaju rabbika sa participation borom sa fayug borom xayrun moo gën su fekkee yaa koy laaj bu fekkee ne yow yaay di leen woo ci diine ji ba noppi di am yoo leen di laaj ba yooya tax ñu gàllankoor diine ji bu fekkee yaa leen di jàngal alxuraan ba noppi am yoo leen di laaj yooya tax ñu gàllankoor alxuraan mu ne ko na ko bàyyi ndax fa xaraaju rabbika li la sa borom di fayee ci alxuraan ji boo leen ko day jàngal xayrun moo gën wa huwa yàlla xayru raziqin moo gën a mën a wërsëgal wërsëgal kon yi foofu li muy tekki mooy alxuraan ki koy jàngale moom it diine ki koy jàngale moom it bu mu ko teg ci kaw foog ngeen jox ma nanga mbaa du ma ko def waaye suñu borom nee na moom ki koy def moom moo ko gadul wërsëg dina def ba doomu aadama yi di ko jàppale ci wërsëgam di ko wër ci wet gu nekk tabarkàlla féete woo ko foofe moo tax ndeysaan suñu benn sëriñ bu baaxoon nekk suñu xarit di xaritu isaat dunia sawdul qalb ñu koy wax sëriñ koso yàlla na yàlla yokk leeram dafa daan wax ne yàlla day ko am fulla la bi nit ñi fayee daara yi wan ko ginnaaw dem di wuti leneen nee na barke ba woon foofu rocc na ko rofaat ko ci daara yi nee ba tax dangay gis ku ne ca daara ja léegi bu fa jógee bu ñëwee moom di faj soxlaay ka nekkoon feneen tabarkal la loolu nag ku war ci dëkk bi daal di ko gis lu baree bari sëriñ ko sa moo doon wax loolu ca sarsaara ca xutbaam yu mujj ya yal na yàlla yokk ko leer kon yàlla mu ne fii yonente bi alayhi salaatu salaam waaw ñii li leen tee ñëw ci alquran bi xanaa yaa leen di laaj xorjan fa xaraaju rabbika xayrun la sa borom di fay moo gën ndekete yoo salawaatullahi wa salaamu alayhi mosu leen laaj dara dara leen laaju tabarkalla yàlla ne ko am tasaluhum ya muhammad ajran ala tabliqi risala fa li ajli zalika laa yuminuun li ngeen li nga leen de laaj moo tax du ñu gëm waaye walaay yarloon na ko neexal nit ñi te ñëw ci alquran waaye nit ñi daal ñoom ñoo xam ne ñooy dëddu alquran ji rek tabarkal yàlla mu ne ko wa innaka yow la tad'uuhum yaa ngi leen di woo na ne yaa ngi leen di woo ila siratin mustaqim jëme leen ci yoon wu jub suñu ko xamee dañ la ci fekk yaa ngi leen di woo jëmaleen ci yoon wu jub waaye boo nekkee ci yoon wu jub ñaar di ci woo aw nit ñoom dañuy defee ne fa ñu nekk fu jubla moo tax ñu lay gantal di la bañ a fekk fi nga xam ne fi nga nekk di leen woo wa inna allazina ñi nga xam ne nag laa yuminuuna bil axira ñoom gëmuñu alaxira ñoom day ani siraati ca yoon wa la naakibuun ku ko jadd lañu la naakibuun ku jadd yoon wa lañu mun xarifuuna anhu jaaruñu ca yoon wa nga xam ne mooy yoon wa jëm ca uh, aljanna siraatul mustaqim tabarkal yàlla mu ne walaw rahimnaahum bu ñu leen yërëmoon wa kashafna ma bihim ñu firi ñu ñu muril leen li ñu nekke min durrin ci ak lor du tee la lajju daañu duggaat fii tuxyaanihim ca seen beew ga yamahuun di ca déng-déngi maanaam di ca dugg di génnaat aay ji li ko tax a wàcc muy sababu soo demee ci tafsir bu ñuy wax albaxar jukkib juróom-benn xatum ñeenti téeméer ak fukk ak juróom wax ji ma nga fa dañu jële ci ibnu abbas radiallahu anhu mu ne mi ngi wàcc ci xissab samaamata ibnu uthal bi nga xamee ne jàpp nañ ko jàpp goo xam ne gi ca ger ba woon mu daal di dugg ci lislaam yonent bi daal di koy bàyyi mu ne daal di ba ko bàyyee nag mu daal dox diggante makk ak miira daal ni wallahi laa yaatikum min alyamaama habba xanda mu daal ni giñ naa ba mu demee ba nag giñ naa ci seen digganteeg yamaama aw fépp dootu fi jógeti di fi ñëw lu dul yàlla joxe ndigal tabarkàlla ba wala yonent bi joxe ndigal ñu door ko jox Quraysh daal nekk ci qaat ak juwa maanaam nekk ci wàllu bekkoor wàllu xiif ba mujj di lekk médd di lekk xaj di lekk alxins ñu ne ko waaw luy xins mu ne dañ daan jël ab der boo xam ne bii boow la woon tooyalaat ko ba mu tooy bu ñu ko tooyalee ba mu tooy ñu togg ko nag di ko lekk mu ne loolu la ñu nekkoon abu sufyaan daal ne anshadaka allahu wa rahim alaysa tasam an allaha baasaka rahmatan lil alamin abu sufyaan daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne ko maa ngi lay ñaan yàlla xanaa yàlla yónni wala ngir yërmande comme ni nga ko waxee yonent bi ne ko ah kay mu ne ko ginnaaw ci Yàlla rey nga bàyyi yi ci jaasi rey doom yi ci xiif yàlla daal di wàcc na ah, danaa ko dindi de waaye suñu ko dindi woon day walaw rahimnaahum bu ñu ko dindi woon bu ñu leen yërëmoon wa kashafna ma bihim min dur ñu dindi li nekk ñoom ci lor la lajju du tee danañu duggaat fii tuxyaanihim ca seen beew ga yamahuun di deng-deng déng-déng mooy yataraddaduun maanaam di dugg ci mbir mi di génnaat su ko ñi di def loolu la ñuy wax naan déng-déng léeg-léeg mu nekk ay feebar feebar boo xam ne bii mooy waa ji lépp lu mu bëgg a def rek day wax ne ah baaxut ndax calcul yu bari daal koy famaat loolu suñu borom tabaaraka wa taala la ne moom lay def ñii yàlla mu ne suratu almuminuun aaya juróom-ñaar fukk ak juróom benn wa laqad axasnaahum jàpp nañu leen bil azabi ci mbugal gi fa mastakaanu toroxlu wuñu li rabbihim ngir seen borom wa ma yatadarraun walbatikuñu it ngir seen borom tabaraka taala ngir mu dindil leen li nga xam ne moom la leen defal waaye dañoo gën a bew dañoo gën a jubanti dañoo gën a jubadi tabarkal yàlla mu ne noonu la def nag xata isa fataxna ba ñu ubbi alayhim ci ñoom baaban ab bunt bunt ba saa azabin buntu mbugal la shadid isaahum fii ñoom ca saa sa mublisuun ñu kuttus ñoom ñépp waxoon naa la kuttus mooy turu iblis ku kuttus mooy koo xam ne kii li ngay jëf doo ci amee fay loolu mooy ku kuttus iblis laanatullaahi alayhi moo tax baatam boobu iblis mooy mublisuuna ji ñu toll nii mu ne isaahum fiihi mublisuun wa huwa yàlla alladi mooy borom bi nga xam seen borom bi nga xam ne ansha lakum moo leen defal al sama dégg keneen mënu ko cee wuutu moom suñu borom tabaraka wa taala wal absaara moo leen defal gis keneen mënu ko cee wuutu wal afida moo leen defal xol keneen mënu ko cee wuutu ñett yii moo tax doomu aadama bu ko manqué rek ku ko ci ma defit la ngay def xëy na su fekkee ne lu muur la la ko muur mënees na ko muri waaye joxaat nit bët kenn mënu ko joxaat nit bët bu ko yàlla xañee kenn mënu ko ndax nopp la tax muy dégg marto ba ca nekk di fëgg ci biir nopp ba bu loola yàqoo mbaam paan fiil ya cay jàpp di jóge ci yaram fiil yooyee la doomu aadama xamul fan lay jaaye ba mën koo branché la waat boroomam ba muy diggaat ba tax ko sam nopp ne wéll yàqu tëx jeex na ba ilaa yawmil ci dootoo dégg mukk mukk mukk maa la ko wax wala absaar gisit doomu aadama bu nekk dafa am ay ba ma ko doon jël misaal ay sànqaleeñ bari bu doomu aadama bi di gis day leer lool tabarkàlla yooyu nag dañuy dee dañuy dee léeg-léeg nga xool fu tàng fu xool fu garaw mu am yu ci dee muy dem ba mu yàgg yooyu di dee ba nga wut ay weer ndey santak léeg-léeg yooyu di dee mu yàgg nga far gumba waaye su yooyu dee ba jeexit doomu aadama yi tuñ koo alimenté waat ñëw wutaat ay sànqaleñ yooyu nga manqué woon pour defaat ko ci tabarkàlla suñu borom subhanahu wa taala naka nun al afida xol buy xalaat xol buy dégg xol buy fëhmu yooyu bu ku ko sama borom tabaraka wa taala jël ci yow yàlla nee na mënatoo ci dara amul keneen ku la ko mën a defal kon nag qalilan ma tashkurun li ngay li ngeen koy sant néew na lool ndax ki la defal dégg defal la gis defal la xol boo ko doon sant mooy duutoo déggati li muy tere ku ko dégg duutoo xoolati li muy tere ku ko xool waaye du doo xalaat sax bay jéem a def di tëral ay pexe yu yàq yooyee tabarkal moo tax a asam wal absar ki la ko abal dëgg yàlla fam la xool loo fa nga war a xool ndax ñaare ki abal mbubb bu ngeen àndee di dox doo tooge mbubb mi mukk fu lay tere nga toog fa naka noonu yàlla mi la abal kon nopp abal la gis abal la xool te bu ci nekk da koy nangu ma ne kon fa mu lay xoolloo foofaa jara xool lam lay déglu loo loolaa jara déglu yàlla wa huwa lasi mooy ki nga xam ne zaraakum fil ardi moo leen bàyyi ci suuf si zaraakum moo leen bàyyi fil ardi ci suuf si moo leen bàyyi ci suuf si li muy tere li muy tekki tegtal mooy bu bindutoon jigéen ak góor na gën a jiwu suuf jeex na ci kaw suuf bu damaa damay demaatee nag bu indiwaat la yunt yàlla lóot doon xeex te mooy góor ñi di takk jigéen ñi rek su boobaa doomu aadama jeexaat ci kaw suuf moo tax fi mu nekk nii it bu ñu bàyyiwul xel naan léegi mbirum xale yi dañoo bari ci kaw àdduna si doomu aadama dañu fee bari nan leen wàññi bu ñu leen dee wàññi boo muy tudd loola mën naa jur mu jeex yàlla nee na bu ngeen ko defee nu rek day tabarkàlla dana jeex wa huwa alladi zaraakum fi l ardi moo leen bàyyi ci suuf bi tariqi tanaasuli ñuy am ay doom xar yi di am ay doom ba yëg nag yëg yooyu ñépp na ci kaw suuf waaye rawatina doomu aadama yi wa ilayhi tuxsharuuna waaye nag lu yàgg-yàgg ci moom lañ leen dajale ñoom ñépp jëkkër yeeg jabar yeeg doom yeeg pazeron yeeg ministère yeeg gouverneur yeeg ñëpp ñun ñëpp ñu daje suñu borom ko taala su ko defee mu àtte ñu ne yéen ñi yéen nekkoon ci la may santaani waaw leen góor yéen ñi yéen nekkoon ci la may tere kaay leen toog fii ba ma seet seen i mbir tabarakàlla yàlla subhanahu wa taala mu ne wa wallazi yàlla ki nga xam ne yox yi moom rek kay dundal ko dund ndax secret dund moom rekk moo ko yor wayu miitu mooy rayit ndax secret dund bi moo xam fam nekk mu koy coppati doomu aadama nag mën naa def sababu lu rey nit mën ngaa jël yet nga ngàdd nit mu dee waaye li lay xamal ne dee ci loxol yàlla nekk mën ngaa jël yet ngàdd nit te du dee lépp lu nit def nit mu dee mënees na koo def nit te du dee doomu dama dana dugg ci oto oto ba accidenté mu dee waaye dama aadama dana dugg ci oto oto ba accidenté kenn du ca dee yàlla moo yor dee moo yor dund mas nañoo am ca booru ay 74 accident boo xam ne bii minicar boobu fukki nit ak ñeent ci nekk ba mu accidenté ñépp a dee ba mu des kenn kooku bañ ko yóbbee ci hôpital ba faj ko ba mu am ñaari at mu tane génn di ñibbi këram minicar ba mu duggaat ba mu accidenté kenn deewu ca moom dong moo ca dee moom dong moo ca dee suñu borom yux yi wa yu miitu moom rek mooy dundal moom rek mooy rey tabarkàlla te loolu mooy dese woon na fi ñaari at yu mu war a tëdd hôpital fi ñaari at yu war na lekk tuuti ceeb waroon fee lekk tuuti laax ndax door fee jógee li feeg sa wërsëg jeexut suñu borom tabaraka wa taala du la fi jële yàlla daal wa huwa allazi mooy ki nga xam ne yox yi mooy dundal moom képp wa yumiitu mooy rey moom képp waaw yox yi ramim tabarakallah subhanahu wa taala moom mooy dundal waaye moom mooy rey wala hu yàlla moom moom it ixtilaafu leyli wuute guddi gi ak bëccëg wala ixtilaafu leyli wuute guddi gi wan nahaari ak bëccëg loolu tam ci loxoom la nekk subhanahu wa taala kattanuk léeg-léeg jant bi dem weer wi ñëw kattanuk naaj wi léeg-léeg mu tàng guddi mu sedd kattanu nii guddi mel lëndëm këruus kenn ku ne wut say lamp di fi di branché fu ne nga dugg fa te bu bëccëgee tabaarkàlla ñu fay yépp yàlla nee na wuute guddi geeg bëccëg daal ak yi nga ci gisee yépp tabaaraka wa taala moom mooy ko ko moom waaw afalaat ak taaqiluun mu ne mu ndax du ngeen jëfandikoo seen xel te guddi googu bëccëg kat saa bu ko yàlla tuddee rek la ci ëpp mu wax ci mbirum xalaat ndax guddi ak bëccëg ñaari noonu doomu aadama lañ yoo xam ne kii dalay gane si bu demee kii ñëw gane si la te ñoom ñaar <clears throat> ngeen baal ma ñoom ñaar kenn ku ci nekk day roñ ci sa dund gi bu digg day ñëw ak si di waxtaan ak yow nga defee ne yaa ci nekk daal di fi ataaya daal di fi def say mbir daal di fi doxantu daal fii génn lu ne nga dugg ca ndekete moom li ko tax a ñëw moom guddi gi mooy fukki waxtu ak ñaar la bëgg sàcc ci sa dund googu doom yóbbu ko moom guddi gi nga xëy bëccëg bi ñëw. ak si moom it nga daal di dem marché daal di dugg ñëw wut loo togg daal di añ defar say jus naan say ataaya ndekete yoo moom tamit bëccëg bi li tax mu ñëw mooy dafay roñ sa dund gi fukki fukki waxtu ak ñaar su ko ñoom ñaar bu demee yóbbu 24 heures di la roñ di la di la ba mu yàgg ñu ci sa boo seetee semaine bi ñaata heure la ñuy roñ sa dund gi nga seet weer wi ñaata ñaata a heure la guddi ak bëccëg bi roñ ci yow noonu lañ lay roñe di la roñ di la roñ ba mu yàgg rek benn bis rek ñu naa yow kat sa dund jeex na nga ne waaw lu ko jeexal ñu ne la karrul jadidayni qad abla ibaatahu wan shaqa asfalahu wan shaqa ahlaahu moo di guddi gi lay song ak bëccëg bi ñoom nga xamul li fi wut si moo tax euh, maam borom Tuubaa radiyallaahu anhu mu doon wax donga ya waaw mbaa yéen a ngi bàyyi xel seen ñaari gan yi mbaa da ngeen bàyyi xel gan ñu ne ko ah waaw Mbàkke ñun de bu ñu amee gan danañ ko toggal lii danañ ko toggal laa danañ ko ataayal mu ne ma gan yooyu de guddi laa wax ak bëccëg daal leen di ci waar waar waaraate wu doy waar mooy leen guddi gi su ñëwee day jël ci seen dund gi ay waxtu bëccëg bi bu ñëw jël ay waxtu te it su guddi bëccëg bi ñëwee boobu bëccëg nga yendu dootu ñëwati mukk mukk mukk tabarkàlla dootu ñëwati mukk mukk ndax tey jii bu ñu ne tey la 14 décembre wala ba 14 janvier 1999 loolu dootu ñëwati àdduna si mukk mukk maa la ko wax dootu am benn bis boo xam ne bii mooy 14 janvier 1999 musta am te dootu am kon bëccëg boobu nga yan tey mu dem yóbbu say bagage nga yaakaar ne yaa ci nekk di waajal beneen bëccëg bee di ñëw moom it bu ñëwee roñu rek tabarkàlla nga koy def ba benn bis ndeysaan ba jaaw tàmbalee feeñ ba benn bis ndeysaan doole tàmbalee néew ba benn bis ndeysaan ñu ne yóbbu leen ko hôpital ba benn bis ndeysaan ñu ne delloo leen ko ca kër ga ba benn bis ndeysaan ñu ne wàccee leen ko lal bi benn bis ndeysaan ñu ne jubale leen tànk yi mu jëm penku benn bis ndeysaan soxna yi tiim la najaay xàmmee nga ma ba benn bis ndeysaan ñu ne ah léegi kat moom noppalu na sànq nan ko yóbbu ca morgo ba tabarkàlla noonu rek la lahu ixtilaafu lay wa lahu ixtilaafu leyli wa nahaar afala taaxiluun mu ndax du ngeen jëfandikoo seen xel ci guddi ak bëccëg bal li fi nekk xaaloo dañuy wax misla ma qaala lu mel ni la waxoon al awaluuna ñu njëkk dañuy wax la njëkk ña waxoon njëkk ñu waxoon xaaloo dañu ne woon a isa mit na mu ndax bu ñu faatoo bu ñu deexee wa kunna turaaban ñu nekk suuf wa isaaman ak yaqi kese a inna la mabuusuun mu ndax ñun daan ñu dekkal yàlla nee na lii lañu ñu njëkk ña waxoon ñu tey ñi it loolu la ñuy wax ndax ki dul waajal àllaaxira mooy daa gëmul àllaaxira ku gëm àllaaxira da nga koy waajal waaye ku gëmul da nga naan a isa mitna wa kunna turaban wa isaman a inna la mabuusuun mu ndax daañ ñu dekkalaat tabarkàlla loolu mooy xalaatu képp koo xam ne kii jàpp nga ne doo dekki laqad waidna digoon nañ nax nu ñun wa abauna ak suñuy bàyyi haza lii min qablu bu njëkk gaa ñu naa ah, lii day du am ndax yàgg ñu ko wax ci suñuy maam la woon ci ibrahima la woon ca hajara la woon yàgg na bu yàgg ba léegi ñu ngi wax dekki lu nañu wax ko yàlla mu naa ah da ngeen a xamul rek eh, li fi nekk tabarkalla ndax dekki ñaare boo koy wax ni yàggaay wee tax mën na koo weddi yàlla tabaraka wa taala mu ne leen ñu ne in haza lii nekkut illa asatirul awalin lu dul léebi ñu njëkk ñi rek tabarkalla yàlla ne leen waaw li ngeen nekk turaaban nekk ay yax moo tax ngeen di wax waaw xul laaj leen li manil ardu ku moom suuf wa man fiihinna ak ñi ci suuf in kuntum taalamuuna bu ngeen amee xam-xam sa yaquluuna daañu ne lillaahi yàlla ko moom tabarkal yàlla mu ne waaw kon léegi ginaaw yàlla moo moom suuf moom ñu nekk ci suuf lu tax ngeen yaakaar ne du ngeen dekki yàlla mi moom suuf ñu dugal la ci biir suuf suuf lekk la bés bu nee suuf delloo ma yàppi sama jaam bii delloo ma yi sama jaam bii delloo ma yàqi sama jaam bii suuf moom daf koy delloo lépp loo xam ne moom la jëloon ci jaamu boobu tawakkal léegi nag afala tatak afala tasakkaruun mu ndax du ngeen waaru moo di ginnaaw yàlla moom moom suuf moom ñi ci suuf su suuf lekkee ñi ci suuf bis bu nee suuf delloo delloowaat ma samay jaam rek suuf delloowaat ko moo tax jënu noox ba ba mu seexee noox dugal ko ci biiram ba dugg ci biir géej gi ñun fukki fan ak benn ba yàlla ne jën wa delloo ma sama bi yonent jën wa dafa ñëw ba ca géej ga ci tefes ga daal di ko fay gëq te tabarkàlla te xam ngeen jën wa bu ko yàlla waxtoon delloo ma ko boo tul foofa la yonent yàlla yunus di reese ci biiru jën wa nekk yeneen kon xul la man xul li manil ard ku moom suuf sa yaquluuna lillah wa man fihinna sa yaquluuna lillah qul afala tadakkaruun mu ndax du ngeen waaru kon ci ne bu yàlla bëggee ngeen dekki ngeen dekki akay yàlla mu ne xul waxal man rabbu samawaati kan moo moom asamaan asabii yi juróom-ñaar wa rabbul arshi kan mooy borom aras al azim aras bu màgg bi loolu tam boo ko laajee sa yaquluuna daañu ne la lillahi yàllaa ko moom xul ne leen tattaquun mu ndax du ngeen ragal kooku nga xam ni moo moom juróom-ñaari asamaan mooma arash aras bu màgg bi mu ndax du ngeen ko ragal kooku jar naa ragal lool tabarkalla suratul muminuun aaya juróom-ñett fukk ak juróom-ñett xul nee leen man bi yadihi ana ci loxol kan la nekk malakuuti kulli shay'in nguurug lépp yàlla mu ne laajal ma nit ñi ana kan la ci loxom nekk nguurug lépp nguurug lépp wa huwa te kooku yu jiiru muy suñu borom tabaraka wa taala yu jiiru wala yu jaaru yu jiiru ci moom la ñuy làqu wala yu jaaru alayhi yu jiiru mooy làqe wala yu jaaru alayhi te deesu ko làq maanaam yaxmi man istajaara bihi waltajaha ilayhi wala yaqiidu ahadun minhu ahada moom daal mooy làqe waaye kenn du làq kenn bu ko yàlla soxla yu jiiru wala yu jaaru alayhi yu jiiru mooy làqe wala yu jaaru alayhi kenn du làq kenn bu la sama borom tabaaraka wa taala soxlaa ci bëgg laa duma wala mu soxla la ci bëgg la fee jëlee jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu in kuntum taalamuuna bu ngeen amee xam-xam da ngeen xam ne moom rek yu jiiru wala yu jaru ali soo laajee loolu it su yàquloon daañu la wax ne lillahi yàlla moom moom mu mu malakut kulli shay'in moomeelu lépp ndeysaan moo tax bu dama adama bëggee faatu ñu bëgg koo fexeel yu jaaru alayhi da ngay gis ndeysaan ni ñu njëkk a def mooy yóbbu ko hôpital lan cey teg mooy yóbbu ko ca xëy na benn meer ci koñ bi wala benn paa ci koñ bi fu ñu ko yóbbu rek waxee la man raaq ko ci man dara yàlla ne tek rek di leen déglu bu ñu demee dem ba sonn ñu daal di koy indi nag daal di ciy ne da yàlla rek moo ci des suñu borom tabaraka wa taala ne léegi nag ilaa rabbika yawma isil masaq kon di tey moom tey lañ koy yóbbu ci suñu borom xul ne leen bi ngeen xamee lii fa anna tusxaruun naka lañ leen di njabare kon ba ngeen di walbati ko di fi bàyyi yii nga xam ne mooy li am dëgg yàlla daal mattaxasa allaahu min walad mattaxasa allaahu yàlla jàpput min walad ci doom yàlla du wax maa walad allaahu min walad déedéet yàlla day wax ne adopté doom ni diwéy sama doom sax duma ko def mattaxasa allaahu min walad wa maa kaana maahu min ilah amul beneen yàlla bu nekk moom du am frère du am jarbaat yàlla amul benn koo xam ne kii tabarkàlla doom nga ci moom wala ngay rakk ci moom wala ngay morom ci moom mu ne isan su fekkoon ne yeneen yàlla am na nekk fi ak yàlla la sahaba dana yóbbu kullu ilahin yàlla bu nekk bi ma xalaqa ca lam bind bu fekkoon yàlla dafay nekk jeneen yàlla nekk fi yàlla nee na wala ay yeneen yàlla yàlla nee na yàlla ju nekk da ngay jël la nga bind yóbbu ko te kon adduna yàqu wala ala baaduhum tey dana kowe lenn ci yàlla yooyu ala baadin ci lenn mu ne bu fekkoon ay yàlla yu bare fi nekk dafay am yàlla ju féete kaw yeneen yàlla yi man leen ëpp leen doole te bu yàlla yi doon xeex ci asamaan si dama ne léegi tey nga gis asamaan si nit dañu la ci suñu kaw daan mu ne ibnu kasir day wax ne law qaddar law qudira taaddudul aliha lan farada kullun minhum bima xalaqa summa la kaana kullun minhum yatlubu qahra al axar wa xilaafahu fa yaclu baaduhum ala baad wa ma kaana yantasimu alwujud walmashahid an alwujuda muntasimun ah, muttasiqun xaayit alkamal fa dalla ala tanazzuhillahi anil waladi wa sharik muxtasar ibnu kasir jukkib ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar nee na li xel nangu mooy jenn yàlla ndax adduna nii mu nose woo nii mu amee équilibre nii mu amee tabarkalla wàllu coordination nee na bu ko ñaar yoroon wala juróomi yàlla nee na léegi tey ngis foo xam ne fii nose bii ci am du ci fi nekk nii mbokk yi boo fekkoon fu ñuy baase baas bi ñuy samp ñu bari am sañ-sañu wax nañ def nii mën nañ faa nekk juróomi waxtu juróom benn baas bu di sotti waaye suñu ko doon baas kenn képp yor kàddu gi naan def leen nii def leen nii balaa ngalama ci rek tabaarakàlla nga gis baas ba taxaw adduna si noonu la lu ñu fee taxawal lu nekk boo kenn yoree di ko doxal rek la ba fi ñëwoon ci benn entreprise mu am ñetti patron wala ñeenti patron ñoom ñëpp ñu am sañ-sañ mbir ma dox mukk la ko wax moo tax yàlla mu ne wala ala baaduhum ala baad subhanallah sell ñeel na yàlla amma yasifuuna ci liñ koy melal sori na ko te nazaha allahu wa taqaddasa amma yasifuhu bihi azalimuuna ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi yàlla nee na ñu ngi ci suratul muminuun aaya juróom-ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na aalimul xaybi mooy ki xam kumpa wa shahaada mooy ki xam li feeñ fa taala sori na amma yushrikuuna liñ koy bokkaale yàlla aalimul xayb moo xam kumpa wa shahaada ak li feeñ dama yi xamuñu kumpa ndax kumpa mooy loo xam ne kenn xamu ko lu kenn xam ko ne du kumpa tabarkalla shahaada nag mooy li ñëpp xam wala lu ñu bari xam léeg-léeg doomu aadama day dem ci moromam di ko gisaane loo defe ne kii gisaane daa xam kumpa nekkete moom li muy seetlu moom moo ko génn ci aalamul xay bi indi ko ci aalamu shahaada nan la ko defee mooy da ngay yor fukki dërëm daal di ciy tafli say say bëgg-bëgg wala say say say yitte wala say xalaat soo ko joxee waa ji bi nga ko ko joxee rek moom day daal di xam li ngay li ngay wax lu tax mu koy xam mooy bi ngay xalaat di tafli ci dërëm bi naan ko place bii lay seetlu la jinne sa jinne yow yow sa jinne parce que léegi yaa ngi ci aalamul jinni sa jinne daal di jóg moom dem ci jinne moom daal di koy wax li nga xam ne moom nga tafli ci ñaar dërëm yi bu ko defee moom moomu mu daal la koy wax moo tax seetkat bu ne laa seet boo ne seetal ma mu ne la acca bul tafli ci xaalis bi nga xool du wax dara waaye yor aw fukki dërëm daal di ko seetal ma place bi bi ne ko seetal ma place bi rek sa jinne yow transféré xalaat yooyu ci jinneem mu daal di koy xam mu daal koy wax mu jax tak ko defee nga jóge fa naan si kii ni ma ne seet koo gisati nag mu am problème rek nga ne ko demal seeti bàyyi galaay su ko defee léegi mbir mi nekk loo xam ne lii tabarkàlla dañ koy joxlante rek fekk na yow alamul xëy bi la fa nekk suñu borom tabaraka wa taala moo ko xam alamu shahada nag li fi nekk doomu aadama mën nañ koo xam jinne yi mën nañ koo xam léegi-léeg am lu ñëw ci alamu shahada te feeñagut loola it tabarkàlla nekkatul xëy bu mi ngi ci alamu shahada dañ koo sulleegut tabarkàlla fa taala allahu fa taala amma yushrikuuna suñu borom tabaraka wa taala xul nee leen na nga wax yow yonent bi rabbi yow sama borom imma benn turéya nii nga wan ma maa yu aduna lii ñuy dig yéefar léegi léegi léegi rabbi yow sama borom falaa tajal nii maa ngi lay ñaan yàlla ma boo boo ma boole fil qawmi ci nit ña azalimina tooñkat ya yàlla mu ne wa inna ñun yàlla ala an nuriyaka ñu wan la maa naiduhum li ñuy dig yéefar yi ma weddi la qaadiruun ku am kàttan la lañu bu ñu neexoon tey jii léegi ñu wan la li nga xam ne mooy la yàlla dig ñi nga xam ne ñoo di ay yéefar kon nag lu ñu la def lu métti métti lu ñu la def lu mu naqari naqari idfa na nga faye billati ci la nga xam ne iya ahsanu moo gën a rafet asayi ata ñaawteef idfa fegal billati ci la nga xam ne iya ahsanu moo gën a rafet asayi ata ñaawteef maanaam ku la def ñaawteef daal yow dee ko faye njëkk ku la lebal xorom yow na nga ko fay sucre tabarkalla waaye bul wax ne man de ku lebal xorom ma fay la xorom ku ma lebal si kaani ma fay la kaani loola ab jullit du ko def nit ku baax ku ne ndab lu ne la ca nekk moo cay fengate ndab lu ne la ca fees moo cay tuuroo waaye cin lu nekk la ca la lañ cay togg moo cay xeeñ kon yow mi defar sa jikko ba noppi bu benn nit ñëwee indi la sayi at yow na ko indil ahsan waa bul ko indi xasan képp déedéet ahsan nga koy indil lu gën a rafet tabarkalla moom tax mu defa issa idfa isaatahum bi safi anhum wa tajammal bi makarimil axlaaq ibnu kasir mu ne arshadahu ila taryaqi naafi fi muqaalatati nnaas wa hiya ila man usi ila man yusihu ilay maanaam ibnu ci jukkib ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent day wax ne mocc gi gën a gaaw ci mocc saafara gi gën a gaaw ci saafara diggante bu am ak noono ñamseen yooyu mooy ki lay def lu baaxut yow dee ko def njëkk rek bu yàggee rek te tabarakàlla nga gis mu daal di ñëw ànd ak yow yàlla mu ne nax na ñun aalamu ñoo gën a xam bi maa yasifuuna ci li ñuy melal lépp lu ñu la wax ne la wóor ne xam naako ko lépp lu la sikkal ne la woor ne xam naa ko tabarkàlla wa waxul na nga wax rek rabbi yow sama borom auzu bika maa ngi làqu ci yow min hamazaati shayatin ci okkuk seytaane hamazaati shayatin ci tarxiisuk seytaane ak itam jax-jaxalu seytaane bay dugal ay eh, mooy yàlla walay ñaawteef loola na nga ci muslu ci hamazaati shayatin wa auzu bika nga ne yàlla it maa ngi làqu ci yow rabbi yow sama borom an yaxduruun seytaane di ma teewal an yaxduruun seytaane di teew ci fi nga xam ne fa lay nekk wala muy teew ci samay mbir wala yu demee ni ko yooyu ndax ñaare fu seytaane teew fu ne yàq fa da koy yomb moom seytaane yàlla mu ne nag tooñkat yi dañuy ne ci seenu tooñ continué ca pokat yi ne ci seenum po continué ca caaxaankat yi nekk seen caaxaan continué ca naxikat yi nekk ci seen naxi continué ca rek tabarkalla xatta isa jaa bu mu dikkal ahaduhum kenn ci ñoom almawtu dee dee daan ni jumeet ne la yow dee wala ñu si léegi nag waaji waaji toon defu toon nen qaala rabbi yow sama borom irjiun delloo leen ma dee tey baaxul ci man may leen ma laalli xëy na amalu saalihan ma def lu baax fii ma taraktu ci li ma bàyyi mu ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala damaa bëggoon rek nga bàyyi ma fi fii ak diir bu gàtt ndax malaaka mi def maa bett te su ma xamoon ne tey jii li may jël si balaa ñëw nangam ak nangam moo tax suñu borom tabaaraka taala du wax kenn kañ gi fiy jóge du wax lenn du ko du ko programme ci fenn nit ki daal mooy waaj xam ne rek li koy jël si du ko xaar ku kuñ dul xaar ku nekk nag da ngay xaare tabaarkalla takk say bagage di toog mu ne kon loolu bu ñu ko waxee yàlla ne kalla mukk kenn du la fi bàyyi ngay toogaat kalla mukk tey doo fi yenn kallaa mukk tey le quinze du la fi fekk innahaa wax ji nga wax kalimatun wax la jag joo xam ne huwa qaa'iluhaa moom rek lay wax waaye suñ ko bàyyi woon it tabarkàlla mu nekkaat ca noos ga ñoom seen yooyu waaye duñ la fi bàyyi mukk yàlla mu ne wa min waraihim kii nekk na ci kanamam barzaqun barzaq barzaq moo di diggante adduna ak alaxira fi nga xam ne fi la ñi faatu def escale doomu aadama yi faatu yépp ñu ngi di escale kenn demagul yowmal xiyaamati ñu ngi ci barsaq foofu ñu nekk nag dafa am ñu muy neex ci ñoom lool am ñu muy naqar ci ñoom lool am ñoo xam ne yemamaay ñoom lool ñu ngi yem rek ci seeni jëf ak yooyu xam ngeen ñi fi jógee di tukki it léeg-léeg ñu escale foo xam ne fii du ñu tolloo nu ñu escalé am na ñoo xam ne ñu fañ escale tabarkàlla ca hôtel la ñu nekk am na ñoo xam ne ñu fañ escale ci aéroport ba dong la ñu nekk tabarkàlla nekk fa nekkin woowu léeg-léeg mu xaw a doy waaye nii tam noonu la ñi fi jóge doomu aadama yi nekk ci biir seeni bàmmeel ñu ngi ci benn escale boo xam ne bii ñun la ñuy xaar kenn yeewoogut kenn jógagul yow ma yaqumu naasu li rabbil alamina la ñuy dekkeendoo ñun ñëpp moo tax ñun ñii nga xam ne ñoo ci àdduna si ñun la ñu xaar dañoo ci benn escale fa ñu escale nag dëkk boobu moo tudd al barzax ñi ngi jógee ad dunia jëm al axira léegi nag escale barzax bu ñu faatoo ñun ñëpp nag tabarkàlla ñu doon faa jóge nag daal di jàll nag ilaa yawmil xiyaamati Eh, yàlla nañu fi yàggatee yàlla fekk ñu ca la nga xam ne moom lay santaane mu ne waa min waraihim nekk na seen kanam barzaqun barzaq ilaa yawmi yubasuuna ba baa ñu leen di dekkal foofa la ñuy nekk ca barzaq moomee am na ñoo xam ne la ñu yóbbu woon jeex na ndeysaan am na ñoo xam ne la ñu yóbbu jeex na am na ñoo xam ne daaw lañ jeexal am na ñoo xam ne la ñu yóbbu tuutee ca des ñii seeni mbokk fàtte nañ leen ñii seen mbokk amatuñ ci ñoom paal ñii seen mbokk séddu nañ seen i alal séddutuñ leen sax ca alal ja tabarkalla ñii seeni jabar tingi nañ leen ba jeexal génn nañ ca ñoom dugg feneen moom daal bëri na lool ilaa yumi baasuuna ña nga foofe moo tax Omar ibnu Xataab dafa ñëw ci xabru yi ne leen asalaamu aleykum mu ne ñu ne tekk mu ne asalaamu aleykum ñu ne tekk ba mu ñetti yoon mu ne leen ah nuyu naa leen fayu leen waaye man danaa leen jox benn message ba am solo mooy seen jabar ya ngeen fa bàyyi woon daal góor ñu takk nañ leen seen yére ya ngeen fa bàyyi woon góor ñu sol nañ leen seen tool ya ngeen fa góor ñu bay nañ ko jàpp ca loola tabarkalla ba mu bëri lool ndeysaan yàlla mu ne amu nga fa isaa nu fiqa bu ñu walee nag fi suuri ca buftu ba nga xam ne dekki jot na ak jóg falaa an saaba du am bay na um seen diggante aw askan falaa an saaba askan du am bay na um seen diggante yow muy suñ bu keroogee bu ñu dekkee yamal xiyaam amul aw askan ñu kii mi ngi bokkoon fii kii ma nga bokkoon fee ana ana ana ana ana ndaw kundaay ana càlleen yi yooyu du am de falaa an saaba bay na um yow may sin wala yet saa aloonu du ñu laajante it kenn laaj sa morom yow kon kan fan nga bokkoon loo doon déedéet moom kay malaaka yi ñoo ñëw di seet yëf ya yàlla mu ne kaay leen ma wax leen la fay xew fa man saqulat ku diis na mawaasinuhu ay balance am fa ulaika ñooña fa ulaika ñooña ñuñ mën a doon fu ñu mën a bokk ku ñu mën a doon humul muflixoona ñooñaay sowe wa man xafat waaye képp ku oyof mawaasinuhu ay ay balance am fa ulaika ñooña ñu ñu mën a doon nu ñu mën a toll nu ñu mën a mel allazina ñoo ñi nga xam ne xasiru anfusahum perte nañ seen bopp fii jahannama ca sawaraw jahannama xaalidun la ñuy sax talfahu muy alawtiku moom sawara wujuhahum seen muy alawtiku wujuhahum seen kanam ya annaaru sawara wa hum ñoom fiiha ca sawara wa kaalixuun ña nga siiñ ña nga siiñ maanaam sawara bu leen di lakk dañuy siiñ ni xaaj boo xam ne bii dafa faatu xam nga xaj ñaari bu faatoo tuñ ñi dafa jotut da ngay daal gis mu siiñ sawara it bu ñu bu fa nit ñi duggee ñu fay dugg yàlla ñu ci yàlla musal day siiñ dañuy siiñ ñoom ñëpp yonente bi mi ngi wax ci addis mu ne taswiyatu naari fa talqasu shafatu lulia xata tabluqa wasata rasi wa tastarqa shafatu suflay xata tabluqa suratuhu hadis boobu atirmisi moo ko génne mu ne hadisun xasanun xarib moo di yamal xiyaam bu ñu duggee sawara ña fa dugg yàlla ñu ci yàlla musal sawara wi day lakk seen tuñu kaw yi nee na ba ci digg bopp ba bu ko defee ñu siiñ sawara wi lakk seen tuñu suuf yi ba mu mu lakk ba jeex bu ko defee ba ñu ne fànn ci biti ndeysaan yàlla na suñu borom musal ci loolu kon agsi nañu fi nga xam ne fi la dars bi di yem tey insha allah subhanahu wa taala muy aaya téeméer ak ñeent ci suratul muminuun wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi déglu ginnaaw bu ñu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam nañu ci seen tafsiru alquranul karim bi leen isaatu dunia sawtul qalb di defal fii ci dakaar bés bu jot bi ñu umee ba léegi tabarakallahu ñu ngi woon ci suratul muminuun muy saaru ñaar fukkeel ak ñett jàngoon ko ba am ci téeméeri aaya ak ñeent suñu borom di wax fa man xafat mawazinuhu fa ulaika alladina xasiruu anfusahum fi jahannama xaalidun talfahu wujuhahum naaru wa hum fiha kaalixuun war a doore tey ci aaya téeméer ak juróom fi suñu boroom tabaraka wa taala di wax alam takun ayaati tutla aleykum fa kuntum biha tukazibun mu di ñi ñu dugal sawara ba ñu fa duggee sawara dafa lakk seen tuñu kaw ya lakk seen tuñu suuf ya seen bëñ ne fànn ca biti moom la suñu baram di wax wahum fiiha kaalixuun ñu nga siiñ fan ndax amatuñu ay siiñ amatuñu ay tuñ yàlla nag bi mbugal gi méttee ci ñii ak seen siiñaay bi moo leen waaw yéen ñi moom nag daf ñu ëpp doole shiqwatu naa suñu texee di suñu texee di daal suñu pamu bari suñu càggante suñu bëgg àdduna loola moo ñu notoon wakkun naa ñu nekkoon rek xawma di nit ñoo xam ne booliin ñu sànk lañu woon ñu réer lañu woon ndax dañoo toppoon ay banneex ak i neex neexi àdduna léegi nag rabbana yow suñu borom axraj naa ñoo ngi lay ñaan nga génne ñu min sawara wi ndax metti na lakk na suñu tuñu kaw yi lakk na suñu tuñu suuf fii ndax mi ñuy naan tàng na jër sawara wi tàng na lool alkande ji fi nekk daal suñu borom dañoo bëgg rek nga génn ñu fa in ud naa suñu defee nañu defoon fa inna zalimun su boobaa ñun ñii ñoo tooñ dimbile ñu rek nga génn ñu qaala yàlla na leen iqsa'u dugg leen iqsa'u dellu leen ginnaaw fiiha ci biir aljanna wala tukallimuun bu leen waxateeg man iqsa kalima tustacmalu fi sajri alkilaab fa fiiha ihanatun wa ibaad maanaam bu ñu nee iqsa ni ngay wax ab xaj naan ko jara noonu ñu koy dàqee noonu la arab di dàqee xaj baat boobu la yàlla jël jëfandikoo ko moo tax ba demee ci tafsir bu ñu wax tashil jukkib ñett xatum juróom fukk ak juróom-ñaar moom la firee baat boobu iqsa'u fiha wala tukallimuun innahu li tax ngeen mos lii tey kaana nekkoon na fariqun am mbooloo min ibaadi bokkoon ci sama jaam ya fu ñu nekkaan ñoom ñooñee maa leen safoon man lañ bëggoon diine leen safoon diine lañ bëggoon yaquluuna dañuy wax dañ daan wax ci àdduna rabbana eyo suñu borom aman naa gëm nañ loo tere ñu bàyyi loo dégg la def léegi nag faxfir lanaa yàlla nga ñu baal warxam naa yàlla nga ñu yërëm waa anta te yow xayru raximina yaa gën a yërëme mboolem ko yërëm